jàpp nañu nag ñaari fan ci weeru juin bi muy maanaam ëllëg ñun INAPES dañ ci ànd ndaxte am na liggéey boo xam ne bii def nañ ko li ñuy ñaan moom mooy euh, ministre de l'éducation nationale ak ministre de l'enseignement supérieur te dañu ci insister matuwaay yi mu jël pour que jàngalekat yëpp dal di dem seeni gox-goxaan pour mën a commencer njàng mi nañu fexé ba aussi ñu dal di koy def parce que amna ay manquement parce que bari na ay ndongo yo xamné actuellement ñu nga seen dëkk té dañu am ay jafé jafé pour déplacer wu xam nañ ne ay manquement mo am mënul ñak parce que suba mënu ñu xey rek comme niñ koy waxee ubbi tay jangi tay mënul nekk té li ñuy ñaan way juru ndong yépp surtout ñi nga xamné ñu ngi ci tout euh, élémentaire bi té ñu wara def entrée en 6e képp ko xamné ki suba da ngay xey da ngay téye sa loxoy doom yóbbu ko ba ca école ba boo xoolee mu leer na ne la ñu waxoon yépp war war na mat nga dal di koy bàyyi mu dugg ci classe bu fekkee ne am na lu ci yànq rek na jël doomam dal di koy delloo këram. alors bu ñu xoolee ñoo ngi gis ay école yoo xam benn maraar lañ leen di jox benn zel élèves dañ leen waxoon ku nekk trois masques am na ñoo xam ñaari mask am na ñoo xam sa benn masque lañ nar am kon ça veut dire que ni li ñu waxoon yépp matewuñ ko ñun nag. def nañ suñu waree mooy wax nañ wax nañ ñëpp dégg nañu wax nañ nag parents d'élèves yi comme président nee ku nekk na nga jël say matuwaay ku ne na nga jël léegi say matuwaay ku ne na nga jël say responsabilité muy parents d'élèves muy élèves bi ku ci dañ kumpa ba dem école ñëpp dinañ dem école loolu xam nañ ko ku dem na gis loo xamante ne doyul sa xel bu la neexee nga toog fa bu la neexee nga dem deel en tout cas ñun def nañ li ñu waroon def mooy ñu wax wax nañ gouvernement dégg nañ parents yi dégg nañ ñëpp dégg nañ lu ci mënti am ñun def nañ li ñu war def ministre de de de la santé nee na moom dina ci loxoom kon lépp lu mënti dal benn élève ak ku mënti doon ministère de l'éducation mooy responsable ak gouvernement bi.